الحمد لله الذي أغناني وأعزني بتلاوة القرآن ثم الصلاة على النبي المصطفى خير البرايا من بني عدنان على آله وصحبه ومن والاه mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñi ngi sant yàlla di kontaan ci seen teewaay fii di bokk ak ñun suñu xew-xewu diine bile dañoo bëgg a waxtaan ak yéen ci wàllu miraas héritage moom lañoo ndono ndono nekk loo xam ne jullit bu nekk bu koy def daf ko war a defee na ko islaam tuddee loolee nag moom lañuy waxtaanee tey suñ mbokk mii ñuy wax alaaji Mor Mbay nekk xaadi maanaam juste àttekat ci tribunal bi bi tuwaayoon moo ñu koy defal tey waaye bala ñuy def dara li ñuy def mooy présenté leen ñenn ci gan ñi nga xam ne ñoo fi rot ku ci dégg sa tur nga xam ne ñi ngi lay bëggee waaye ku ci déggul sa tur nga xam ne eh, xëy na ñàkk ak tur bi ak ñàkk xàmmi bi rek la waaye ñëpp rek la ñuy gërëm suñu président mu ngi nii Alaaji Babacar Diop la ñuy bu ñu defee présentation ba noppi jox suñu président président alxaaji Aboubacar Diop sëriñ Mbaye mu waxtaan ak yéen xamal leen association bii de Serigne nga xam ne moo organisé bésu tey bii suñ jógee ko ci loolu nag doog a jox alxaaji Serigne Mor Mbaye xaadi Tiwaawoon mooy àttekat ba ca Tiwaawoon mu defal ñu waxtaan wi kon ñu ñëw ci présentation bi eh, rot rot na ci béréb bi bokk ak ñun xew-xew bi docteur Abdoulaye Lam mooy président Ebadu Rahman niki noonu rot ci jotaay bi alxaaji Ibrahima Thiam notable surtout des enseignants kunun moo nekk adjoint chef de village niki noonu alxaaji Alassane Wade nekk notable nekk kóolëre suñu président docteur alasaan mbay docteur bu mag la ñi nekk hôpitaux yi xam nañu ko docteur Aboubacar Ndour nekk prédicateur di woote ci wàllu yàlla nekk conférencier ñëpp xam ko professeur Souleymane Seck formateur la ci sëriñ la bokk moom it moo mook Alassane Mbaye ak Babacar Ndour yëpp nekk ay kàngam waaye professeur Mouhamadou Ka nekk mathématicien lycée Sénégal yi xam nañ ko ni ki noonu professeur Moustapha Thiam membre la ci sérit Mouhamad Mamaya Silla membre la ci sérit oustaz Ibrahima tey imam la ci benn jumaa bu nekk sàngal kaam imam Fay Saane nekk imaam nekk notable waaye moo jiite imaam yi ca jumaa jamay jiite man mii nekk fa suñu mag waaye ànd nañu femme ñi nga xam ne ñoo dëkk cité enseignant ñooy jigéen ñi ngeen di gis ci kanam waaye rawat na kuréel ba ñuy wax jokkara indem ak suñu dëkkandooree ñu ngi leen de sant nekk na ci place ba tey alaaji Sidi Traoré nekk kilifa nekk membre ci sërit waaye ak alxaaji Abdoulaye si nekk directeur école ba nga xam ne moo nekk ci sërit niki noonu personnel enseignant bi nga xam ne moo nekk ca école ba teew nañu madame Sylla madame Ka ñoom ñoo sol yére yu wert yooyu la ci kanam ñoo jiite ñooñu le waaye élèves école ba it teew nañu ustaas yi teew nañu niki noonu monsieur Saliou Ndiaye teew na fi nekk nekk juge ci cour d'appel bu Dakar ak ku ñuy wax Daouda jaañ jóge Casamance Daouda Diallo pardon jóge Casamance ak ak Souleymane Ba ñoom ñëpp ñu ngi leen di gërëm Souleymane Ba mu nga jógee Linguère moo fa nekk kaadi maanaam moo fay àtte sëy yaag yi mel noonu le am nañu encore Souley mam Souleymane Ba ak Aboubacar Diop mi nga xam ne moo nekk suñ président nga xam ne su ma paree moom lay jox kàddu gi su ko defee mu xamal ñu lan mooy association sérite bi nga xam ne moo organisé bés bii jërëjeen jëf kon doyen Diop ñu ngi lay jox kàddu gi ah yow itam association bi nga xam ne yaa ko jiite yaa ko suqali ndax sëriñ demoon na ba nga xam ne daanu na moom nag lañu bëgg jox kàddu gi mu wax ñu sëriñ lan mooy mission am fan la jaar ba agsi fii tey kon doyen kàddu gaa ngoog asalaamaaleykum wa rahmatullah ginnaaw ba ñu waxee alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaam ala ashraf almursalin seydina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima alhamdulilah parce que ndax lii dafa nekkoon suñu habitude di def ay conférence yoo xam ni dañu am solo ci yitte bi nga xam ne moo doon suñu yitte ba noo sos série bi gëj nañu def conférence nag yi ñu mujj def defe naa 2010 la woon 2010 la ñu mujj def ay conférence mu ngi bëgg yàgg boobu léegi nag ñu ngi ñett ñetti di góorgóorlu et waxu mënu wax wax ñu ni ñu xeex waaye di wuñ ñu jàppale wuñ ñu loolu moom lu wér la waaw waaye ñun amuñu benn yaakaar ci keneen ku dul yàlla ak yonentam ba ak nit ñi nga xam ni ñoom la fi teg ñuy joxal mission bi li nga xam ni moo waral loolu moo di ñun dañu tudd Séride boo gisee suñu euh, comment suñu logo da nga gis lillahi def ci suuf sérid donc sérid dafa taxaw di liggéeyal lillahi sëlm lillahi sérid dafa taxaw di liggéeyal lillahi liggéey bi moo liggéeyal lillahi nag moom amu si cëru boppam si dul mi ngi liggéey bu ko yàlla gërëmee gërëm ko loolu la ci am gërëm googu nag ñu ngi ko yaakaar ci njëriñ bu liggéey bi di am ci askan wi njëriñ bu mu liggéey ci moo jëriñ askan wi pour gën leen a maîtriser seen diine parce que diine ji mu ngi dooree ci roy wante yemul ci roy lu ko gën a xam na nga ko mën a téye lu ko gën a mën a teet loolu la si ñëpp di wut loolu la ñëpp di wut du du nag ku nekk war a wut xam-xam bépp xam-xam bu nekk ci diine ji kon dafay jafe moo tax suñu borom waxul loolu dafa ne fal tàkkoon minkum waaw aywa kenn déggu la de ummatu waaw am na dokk ñu nekk ci biir ñoo xam ni ñooy xam di jàngale teg ci yoon yoon wi nga xam ne ku ci teg war yàlla moo la ci teg parce yàlla nee na moom mooy tegee ci yoon moo la waxoon yonent ko waxee ni innaka laa tahdi man ahbabta walakin allah yahdi man yashaa waaw yàlla mooy gide ku ko neex yow mënuloo gide kenn dangaa teg ci yoon wan leen yoon mi ngi nii aw leen fii waaw ku aw baax na ku aw baax parce que li nga xam ne moo doy waar ci suñu diine suñu borom daf ñu fàttali ni eh ku mu neex nga topp ku mu neex nga bàyyi nga bañ a topp waaw ku ci nekk moom di nga am soppay bu waxtu fay jotee loolu moo di taxawaayu sërit boo ma taxoon ba nga xam ni ba ñu dooree amoon nañu dispensaire amoon nañu jumaa la ñu njëkk am pour ñi xam ne dañoo ànd ñoon dem complexe ba bu ñu paree bu ñu réunion pare conférence ba pare am nañu ñu mën a ànd ak ñun dem sa complexe ba gis ko xàmmee ko mais avant ça dañu leen woon fii ci complex bi n'est-ce pas dañ ko wone fii tout à l'heure la ci lan mooy complexe bi moo taxoon ñu defan conférence sur le miracle scientifique séminaire international sur le miracle scientifique di Coran et de la Sunna miracle scientifique miracle moo di li nga xam ne ëpp na nit nit mënu ci dara nit mënu lu ñu mel nit mënu ko sax comprendre entièrement gannaaw bu la yàlla dimbalee miracle boo xam ne nag li ñu tuddee science foofu la féete lépp lu ñu tuddee science yàlla wane na ni moom moo ko xam ndax lan alaa yaxlamu man xalaqa wa huwa latiful xabiir moom mi sàkk kan moo ko gën a mën a xam moom mi nga xam ni latif la xabiir la ah, dara ump ko moo tax ba nga xam ni daañuy gis yu bare bare bare ci science ci alxuraan am na am na loo xam ne ren euh, at euh, vingtième siècle lañ ko xam yàlla waxoon na ko ci alxuraan au septième siècle naka nan la génine di développé ci biiru yaayam ba mu nekkee toq toq maniñ ba mu nekkee euh, euh, luy lonku ñenn ngi dox lu mu deret nest aw fa nekk morso yàq bu ñu yëy yax yi génn mu jël yax yi solal ko de la chair après mu def ko lu ko neex mu nekk nit loolu mooy itam eh, bépp bàyyi ma mu ne noonu lay jaar jox ko ma ni yu ci lay jaar li tax ma joxe exemple boobu dafa bokk ci li nga xam ni moo gën a yéeme ci xam-xam pour ñun sos nit ñu ko sosee jaarale ko ci biiru ndeyam pendant juróom-ñeenti weer moo tax ma ni suñu jigéen yi war nañu xam ni ñoom yàlla dafa liggéey ci seen jiir juróom-ñeenti weer parce que moo ko wax moo xam ne dafa liggéey du rek sëñ dafa liggéey ci seen biir juróom-ñeenti weer ñun yàlla faalewuñu <laughs> ñun seen biir lay liggéey juróom-ñeenti weer pour nit génn ngeen ni noonu eh, ñi naan woo noonu eh, femme ah, islam nee na Euh, femmes yi yàlla def leen xeeb ñoom sax dañ leen xeeb de xam yëfu dof ku leen xeeb dafa dof man bi ma déggee loolu ba comprendre ko ah xam ni yàlla dafa wax maa def lii ma def lii ma teg ci lii ma def lii ma def lii ma def lii fu mu koy defee ci sa biir <laughs> ah xam nga yéen da ngeen am da am da ngeen am valeur boo xam ne si exceptionnel moo tax ñu wax ne yéen jur àddina yéen a jur àddina bi il faut ngeen jur ko ku ngeen jurul du bokk ba mu def exception exception Adama exception Awa exception Isa ci li ibnu Mariama ci li ñu xam Isa amul baay Awa amul euh, amul ndey Adama amul ndey amul baay mais ñëpp des ñëpp dañu am ndey am baay seen ndey moo lay ëmb waaw yooyu tam def nañ def ci séminaire bu mag def séminaire ci sàkkaat parce que zakat dafa nekk loo xam ni comme ni ko waxee léegi ak suma benn mbokk duñ ko doxalee rek benn musulman du sonn ñu ko doxalee normal ñu war a joxe zakat joxe ko ñun ko war a jox jot ko benn musulman du sonn parce que képp ku ñu jox zakat duñ la jox ay dërëm ñaar fukki dërëm de sukk déedéet dañuy jox loo xam ne daa mën a liggéey ba joxe zakat yow ci sa bopp boo mën a liggéey ba joxe zakat daa a liggéey ba joxe zakat yow ci sa bopp bu demee noonu ba demee noonu dafa dem ba nga xam ne mës na am ci lislaam ci Umar Abdul Aziz ñu am sakkaar bi xamuñu ku ñu koy jox amuñu ku ñu ko jox waaw que personne kenn soxlawu ko kenn amul ci droit waaw loolu mooy kenn soxlawu ko parce que sakkaar bi nga ci am droit parce que yàlla moo wax ci alxuraan ñan ak ñaan ak ñaan ak ak ñaan ñoo ko moom ku bokkul si ñooñu moomul bokkuloo ci moomuloo ko nga xam ni yàlla dafa ñu defal loo xam ni dafa leer dafa leer dafa leer moo tax benn philosophe tubaab boo xam ne nit ñi dañ ko fokkoon ñu ko daan wax garo di waxoon ni l'islam du diine kese c'est un code de vie maanaam naka la ñu war dundee ñun naka la ñu war dundee entièrement yàlla daf ñu ko wax ak yonentam même booy dugg douche dafa noo duggee si douche ba boo nekkee si douche ba dafa am noo fay nekkee boo génnee si douche dafa am noo noo koy génnee allah allah lépp la ñu yàlla defaral defaral wax ñu lu baax li xam ne boo ko defee rek am tuyaab wax ñu lu bon li nga moytu ko am tuyaab parce que lu bon soo ko moytu da nga am tuyaab lu baax soo ko defee da ngay am da nga am tuyaab nit ñi bu ñu fàtte mukk loolu waaw lu ñu fàtte xam ni kooku itam def nañ ci séminaire pour delloo xelul nit ñi ci zàkkaat dafa nekkoon benn réseau boo xam ne dañu ko bëggoon def ci ci Afrique yëpp ba commencé woon ko eh, waaye xam nga rek nit ñi rek dañu mën a yàq ko nit ñi dañu mën a yàq waaye taxul ñun ñu bàyyi ko daañ ko jëlaat parce que après bu ñu amee difficulté dañ ko teg teg ko nag taxul tekkiwul dañ ko bàyyi waaw dañ ko teg rek loolu moo tax mu dellu si doon di def fii miraas parce que miraas suñu borom moo ko wax ci alxuraan moo ko wax ci alxuraan wax wax nu mu war demee wax ñu ci am cër ak ñu ci amul cër wax lan mooy alal yu nu miraas wax na lañ koy miraase ba pare wax nag ni alalu njirim ku ko lekk dafa mel yaa ngi lekk safara ci sa biir safara moom ngay lekk looy doy lekk safara pour la quelle raison nga xiif sax nga woor tam jàll tàmmal nañu woor tàmmal nañu xiif jàngal nañu xiif boobu ñu dugalee si koor moom la sëñ na al yu ñu waxoon waaw ñun ragal xiif parce que yàlla moo ñu ci yar ak le mois de ramadan ak koor gi moo tax ñun du ñu ragal xiif ñeen li ngi da gaaw ragal xiif c'est la faim c'est la famine c'est la truc comme ça où est le problème où est le problème waaw ñun du suñu problème alors moo tax ñu nii nag nañu laal tam miraas bi parce que miraas bi bari na loo xam ni alors jàmbatoo bu ñuy séddoo te waruñu ko seddoo mos naa dégg ci benn benn kilifa mu ni nit daal lekk lu gën a lew ci moom euh, lu doon lu mu doon li nga doon mooy li gën a lew ci li ngay lekk ah man ko loolu naka la demee mu ne ma que kooku fàgguwuloo ko liggéeyuloo ci loolu liggéey sax mën nga tardé wala nga dem tey nga taw bañ liggéey yëpp bàkkaar la day wàññi valeur li nga fa li nga fa gañe waaye miraas moom yàlla moo wax nii lii nga moom yàlla moo la ko jox directement mu jóge ci la fa nekk lu xam ni alalu yàlla la parce que ñu xam ni ñu xàmmee ni yàlla moom moom alal ji yëpp yàlla moom alal ji yëpp bu mu waxee maa min daabatin fil ard ila alallaahi risqa wërsëg boobu la yàlla di jaarale fu nekk benn voie bi mu ko jaarale mooy waa voie miraas bi mu jaarale voie miraas nag yàlla alalam lay distribuer dañu war a fàttaliku wala ñu xam ni kenn amul dara ku dul yàlla yàllaa ñu moom moom moom moom moom li ñu moom ah eh, nee na nee na wallaahu xalaqakum wa maa taxamaluun nee na maa leen sàkk maay sàkk li ngeen di def lépp lu ngeen def lépp lu ñu def yàlla ko sàkk am solo mooy ñu ngi koy waxaale suñu mbokk eh, Abdoulaye Lam am na collectif association islamique yi fi nekkoon ñoom ñëpp ñu àndoon daan daje daan déggoo bokk tool bi président nee na collectif boobu jar nañu yeewaat ko fexe ba association islamique yëpp àndaat nekk benn di gën di liggéey ànd ak dal andi islam boo xam ne ñëpp dañ ci mën a dund ci jàmm ak salaam loolu Sénégal soxlawaat na ko président nee nañu yeewaat loolu kon yow mi jiite Ibaadu Rahmaan ñu ngi koy fàttali niki noonu représentant Jamra ñëw na fi monsieur jàkk monsieur Diack ñu ngi lay dalal jàmm ki noonu euh, Abdoul Aziz Sy jógee mbir kilaan moom it voilà doomi alaaji Mor Xujja Sy ñu ngi koy dalal jàmm moom it kilifa gu mag la woon ñëpp xam nañ ko ñu ngi fi dalal ba tey docteur seex Tidiane mbay nekk médecin bu siiw siiw ci jamono ji dëgg la jeune la waaye ko briller la ci métier mi kon mbokk yi lii mooy li nga xam ne moo aju ci sérit suñu président alxaaji Ababacar Diop Aboubacar wax nañu ko ci lu gaaw léegi nag pour bañ a perdre temps dañuy ñëw rek ci conférencier bi muy alxaaji Mor Mbay e sëriñ Mor Mbay moom mooy kan alxaaji sëriñ Mor Mbay mu ngi judd 1er janvier 1956 ca Fatick waaye e am na diir bum toog ci quartier bu ñuy wax ci ka Mbao ca dakaar parcelle numéro 390 diplôme yi nga xam ne am na ko 1984 94 1996 diggante boobu ci la am maîtrise ci université Mohammed V université Aynu Sams kon daan ca eh, Mohammed V ca Rabat 1983 1989 ci la amee licence ci faculté droit Aïnou Sams Caire Égypte 1975 1979 ci la mbokk mi am bac mu ngi ko am bac général mu ngi ko amee ci as école bu ñoo Asmayu ca Kuwait 1973 mu am brevet ci franco arabe bi ci point 1 1969 ah suñu mbokk mi mokkal na alxuraan mu ngi ko mbokkale ci daara alxaaji Malick Diop ca seel wi ci Sénégal waaye suñu mbokk mu ko xereñ la xereñ googu mu ngi feeñee ci ne doon na liggéey ci wàllu alimentation général ci Sicap Liberté 1970 ba 1975 mu def commerce extérieur diggante Allemagne Suisse Autriche France ci période 1976 1985 nekkoon na it école waaye nekkoon na saisonnière ci centre loisir et animation culturelle 2002 Kalaak Sikaab Mbaaw. bu waaw da doon def ay livres ak lu jëm ci culture rek. bu direction de livres. direction merci. nekk conseil technique spécial ci mairie Sikaab Mbaaw. nekkoon na représentant kalifa général bu Tiwaawan sëriñ Mansour si borom daara yi ca mairie boobale nekkoon na fit représentant. xalifa général bu Tiijaan Abdoul Aziz Sy Senior waaye suñ mbokk mi am na langue yu bari yu man bokk na ci langue yi arab arab boobu bu ñu doon xayma ni mu ko manee war na cee am mention bien très bien maanaam daf koy wax bu baax mbokk mi ba tey mën na angale angale it mën na cee wax soxlaam bu rafet ba buñ ko ci doon jox mention di ko natt dañ naan am na ci assez bien mbokk mi dana wax français français it mën na ci wax xelam eh, soxlaam bu rafet ba buñ ko doon natt di ko xayma dañ ko ciy jox mention assez bien waaye dana wax wolof encore wolof bi mu nàmp suñ ko ci doon xayma dana ko man dana ci am mention très bien waaye suñ mbokk mi sportif la day def karaté ku man eh, day def ni ki noonu ku bëgg affaire culture la lecture bokk na ci activité yi nga xam ne da koy def waaye mbokk mi amut foofu xaadi la àttekat la jàngalekat la prédicateur la wootekat la ci yoonu yàlla miraas mi ñuy wax tey ne moom lay def buñ doon seet ñi ko man ci Sénégal bu jëlut premier it du génn ñett ñu jakk ñi kon monsieur mbay ñi ngi lay déglu microphone baa ngi noonu mbokk yi ñu ànd may ko suñ nopp ndax ñu ñëpp ñu bokk jëriñu bismillah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu <coughs> eh, ñu ngi nuyu ñëpp di leen siyaare di leen ndokkeel ci toogaay di ngeen toog ak li ñuy bokk ak yéen war koo def tey te muy lu am solo e ñu jël nuyoo bi teg ko ci loxo sunu président Babacar Diop ñu jiite sërit mu joxal ñu ko ñi fi teew ñëpp ak ñi bëgg a ñëw ci ñëwuñu e ñu bëgg a waxtaan ak yéen ci thème bu am solo bu nu bokk ndax li ñu ko li ñu ci boole mooy li ñu bokk benn diine boo xam ne yàlla daf ko def buum tekkee ko sunuy xol déggal ñu pour ñu nekk benn déggal ñu pour ñuy dimbalante mu aayee ñu lépp loo xam ne dafay indi tàqali ko ci sunu biir alhamdulillahi allazi jaala diina ribaatan matinan bayna qulubil muminin wa amara bil ittihaadi wa taawun wa naha an ittanaasuci wa shiqaaqi wa tafarruqi lii laa wax léegi ci wolof te looloo tax ñun ñi fi toog ñëpp ñu ànd kontaan te loolu itam moom la alxuraan wax li ñu bëgg a def dañ ko bokk te moomuñu ko yàlla ñu ko indi amuñ ci benn amuñ ci lenn moo ko indi muy xéewal mu jox ñu ko ñun jullit yi ku dul jullit bokkoo ci waaye ñun jullit yi ñoo ko moom ndax lan moo ñu boole ci benn pas-pas ashadu an laa ilaha illa allah mu boole ñu ci benn principe ci taawunu alal birri wa taqwa mu boole ñu ci ak mbokkale ba ñu nekk ay bokk mu boole ñu ci benn xol alhamdulillahi alladi jaala alquran yad'u ila wixdati alaqida fi qawlihi taala taala inna haadihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budun wa da'a alquran aydan ila wixdati almabda fi qawlihi taala inna allaha yuhibbu allazina yuqaatiluuna fi sabiilihi saffan ka annahum bunyaanun marsus wa fi alhadis masalul muminina fi tawaadihim wa تراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد ودعا القرآن أيضا إلى وحدة القلوب إلى وحدة الأخوية في قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون ودعا القرآن أيضا إلى وحدة القلوب لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إذا أيها المسلمون النعمة alwihdatu nicmatul kubra lil muminin kon yàlla mi ñu boole ci benn pas-pas muy baatu laa ilaha illallah mu boole ñu ci benn principe bu dimbalante ak nekk benn ci loolu la sukkandiku ba boole ñu ñu nekk ay mbokk ci loolu la sukkandiku ba jël suñu xol boole ko mu nekk benn xol benn xol bi ñu nekk ak mbokkoo gi ñu seq ak principe bu ànd nekk benn ak dimbalante bi ñu seq ak pas-pas bi nga xam ne moo tënkee loolu te mooy baatu laa ilaha illallah bi ñu bokk loolu moo ñu fi dajale tey ba ñu war a wax ci loo xam ne daf ñuy indil noflaay bu ñu ko nangoo te mooy lan obligation divine ah, loolu ñu teg ko ci liñ tuddee système héritier mooy nisaamul irs surtout héritage muy nisaamul irs nisaamul irs innahu tasriun ilahiyun innahu tasriun ilahiyun waaw programme la boo xam ne suñu borom moo ko yoonal boppam moo ko moom waaw moo ko moom boolewu ci kenn kenn kenn kenn kenn tasriun ilahiyun sunu borom moo ko tëralal boppam bi mu ko tëralee moom ni sàmmul irsu boobu mu teg ko ci ay fondation yu baree baree bari yoo xam ne dana tax ñu xàmmee ko ak yeneen système héritage yi fi nekkoon ni sàmmul irsi yi fi nekkoon daañ dañ dañ ko daañ ko mën a xàmmee ak yooya dañ ko mën a xàmmee ak yooya ba ci njëkk mooy lan innahu tasriun ilahiyun waaw yatawalla allahu asa wa jalla bayaanal mustahiqiina li tariqati almayit lépp lu aju ci mbëtteef xam naa ne mbëtteef baatu wolof la maanaam nit ki bu fi jógee lii la fi bàyyi tuddagul héritage déedéet arab a koy wax tarika ñu ñu tuddee ko ci olof baatu mbëtteef mbëtteef bii ña ko yeyoo nga xam ne ñoo ko war a moom après aji faatu ji suñu borom moo ko leeralal boppam moom moo leeralal boppam loolu waxul alaaju mboor mbay leeral ko waxul sëriñ kër si Diop leeral ko moom yàlla moo ko leeralal boppam ne ki fi jóge li fi bàyyi ñii ñoo ko yeyoo kon man lu ci sama yoon ah sama yoon nekkatu ci wastaasara aydan bi tawsii eh, bi tawsii tarika li ala haula al moom ci boppamoom yàlla moo jagoo li fi waa ji bàyyi muy tarika bi nii moo jagoo séddale ga moo koy séddale gaay yi nga xam ne ñoo ko yeyoo yàllaay wax ne li fi waa ji bàyyi man maa koy séddaleel sama bopp jox ko ñi nga xam ne ñoo ko yeyoo kon bu boobaa man séddale ba lu ci sama yoon amaan naa ci yoon amatuma ci yoon moo leeral ñi ko moom bi séddale jotee moo séddaleel boppam boolewu ci kenn waaw kon gannaaw boolewu ci kenn ki nga xam ne moom moo moomoon alal alal ji walam yatruku shay'an min al amri li saahibil maal ki nga xam ne moom moo dee bàyyi fi alalam yàlla da ko ci joxu dara déedéet joxu ko ci tus moom daal moom moom alalam dee na yàlla waxu ko bala ngaa dee defal lii defal déedéet joxu ko ci dara kon bu fekkee nun la demee kon est-ce que doomu aadama en tant que jullit am na sañ-sañ ak xaq ci désigné ñi nga xam ne ñoo ko war a doon gannaawam damay laaj Babacar am na sañ-sañ amu ci ah amu ko amu ko fa laysa lahu aydu moom ki nga xam ne kii moo faatu fa laysa li saaxibi almaali xaqun fi taayin alwaarisiin wala taxdiidi ansibatihim yow amoo xaq ci désigner ñi nga xam ne ñoo la war a doon amoo droit ci loolu amoo droit itam limiter seeni cër yow amoo droit désigner ñi la war a doon amoo droit di signer signature ndax moom kii séddale séddale na boppam ba pare te ñi ko moom itam jox na leen ko kon yow dalaa jox dara ba ngay deseñe naan bu ma fi jógee na ma diw donn na ma diw donn bu ma fi jógee diw nañ ma ko joxal nangam ha ha loolu du sa wàll sa yoon nekku ci yow amoo droit dugg foofu yow daal dee nga jeex na alal jàngi ngi yaa ko moomoon dee nga jeex na ki koy ki ko moomoon kan la mooy suñu borom ah moo wax ne ñii mooy wax na ñii ñoo ko ñii ñoo ko yeyoo tey buñ koy séddale te man yàlla maa koy séddale yow mi nga xam ne yaa ko amee woon nag bi ngay dund amoo ci benn cër amoo droit désigné koy doon amoo droit limité kenn cëram ah lu tax yàlla def ko xam ngim xam doomu aadama xam ngim xam doomu aadama na bakkanam mën na ko not bakkanam mën na ko nax ba tax mu jeng ah, ah xolam ci wàllu cofeel ak ay ñëwent man na ko nax ba tax mu jeng mu asiraar arida yi jóge ci société bi ñëw ci kawam mën na ko nax ba tax mu jeng te bu jengee dana am kum xañ dana am kum yokkal moom bu jengee dana am kum dana am kum yokkal lii la yàlla xam ba tax mu génne ci loxoom ne ko sa yoon nekku ci yow nit sa yoon nekku ci ndax xañaate bi nga xam ne mën ngaa jàng def ko yokkal bi nga xam ne mën ngaa jàng def ko loolu sariya bañ na ko loolu sharia bañ na ko ba tax na la am léeg-léeg ci ñuy jàng droit action xawma lan action directe wala action indirecte action indirecte am na ci biir benn action bu ñu tuddee daawa bolisa daawa bolisa masalan ci bor sax lañ koy gën di def ngir lor maanaam ki nga xam ne moom lañ lebal pour mu lor ki ko lebal am loom làq ci àllam ne dafa am koo xam ne ki jaayal naa ko ko wala nangam naa ko ko te fekk ma ko dëgg tey xale boo xam ne juddoogul sa kër gi jar soixante millions nga ne man kër gi jaay naa ko sama doom def nañu bayoo ibtidaay xale bi amagul ñaari at fu muy jëlee soixante soixante fan la ko jëlee ah fekk da nga ko ko may waaye da ko nëbbe fen da nga ko nëbbee fen loolu la ñuy tuddee daawal boolition bu fekkee yaa ngi jàng daawa al mu baasi aw xel mu ci droit da nga da nga fekk fu programme bi yaa ngi dégg loolu léegi nag lii ngay def lan la ah kii maa maanaam maa jox kii sama kër gi kii ne maanaam yow yaa ngi dund ku la ku miraas loo kan moo la miraas loo ba ngay jël carnet naan yaa ngi miraas sa bopp en tant que julit ba nga naan diw jox naa ko nangam diw jox naa ko nangam diw na jël néeg bële jël na appartement bële jël na jël togi kii na féete fi kii na féete fi ku la ko defoo ah ku la ko def la yow mi nga xam ne yow yaay miraas yow yaay miraas sa bopp da nga xam ndax ñi ngay miraas ñoo leen njëkk a dee am di loo ci xam imaam am na wala amul yow yaay séddale est-ce que yow ñi ngay jox du ñoom ñoo leen njëkk a dee dañ cee xam dara xamoo ci tus ndax loolu mooy indi mu naa sa xaat mu naa sa xaat li ko di ci miraas mooy lan mooy léegi bala ñoo séddale miraas mi far am ko faatu waaw bala ñoo séddale miraas mi par am ku faatu am na koy faatu du bàyyi kenn ku koy donn waaye ci biir mu naasaqaat am na koy faatu bàyyi ñu koy donn léegi loolu day am te fekk séddale guñ miraas bi kon yow looy séddale ku la séddale loo ki moom lépp séddale na ba pare loolu moo tax importance bi nga xam ne système héritage bi ñuy jàngale te am na ko ñu jox ko benn wàccuwaay ci islaam mu nekk loo xam ne farata la miraas farata la miraas farata la yoosikum yoosikumallahu wal wasiyatu min allahi amrun wa fardun aw ahdun yajibu al amalu bihi yoosikumallahu jooju wal wasiyatu min allahi amrun wa fardun aw ahdun yajibu al bihi waaw maanaam ndigal la lu bàyyi ko ci yàlla farata la bu bàyyi ko ci sunu borom wala muy kóllëre gu jox sa diggante sa borom kon dañ ko war a jëfe mais tey non miraas boo teg ñi ko moom soo paree mën nañ ko yàqaat firi ko ba mu jeex takk te la nga wax lépp nekk ne diine en tant que ca jàkka ja en tant que imam ba fu ñuy mujj seeg moom tribunal fu ñu mujj seek moom tribunal tribunal seen yoonu bopp mais est-ce que seen yoonu bopp ànd naa ak ñun suñu yoon loolu jar na laaj parce que am na ñoo xam ne nanguwuñu tribunal àtte leen seen wàllu miraas te da nga gis ci famille bi ñu bañ a ñoom seen seen miraas tribunal lañ ko yóbbu te loolu indi woon na coow lu bari Sénégal waa colonial laa wax bi nga xamee ne tirbino musulman yi bari woon nañu Sénégal Fuuta Tooro demoon nañ ba am état wu aïma yi dawlatul aïma fi Fuuta Tooro booba Sénégal lépp lu fi nekk mooy tribunaux islamique moom ngay fekk Fuuta moom ngay fekk Kajoor moom ngay fekk Ngaay gii moom ngay fekk Tëngéej moom ngay fekk dakaar moom ngay fekk ba gore tribunaux islamique mu asasa xarda iya islamien boobu moo fi nekkoon ñu ci daw di ci daw ba 1830 bi colonial bi génne benn loi boo xam ne bi moom la imposé jullit yëpp ne nañ ci àttewu ci seen lépp na code code code civil beeg partout booba mag ñu baax ñi fi nekkoon nga xam ne ci ñoom lañ daan jëlee ay àttekat di jëlee ci ñoom ay conseillers di leen yóbbu tribunal yi mag ñu baax ñooñu bañ bañ ba ña ci jiitu woon mooy waa Saint-Louis yeneen yeneen yeneen yeneen dëkk yi fekk si leen ci ñu daw bañ ne duñu àtte wu mukk ci code civil bu France ndax buñ ci àtte woo day mel ni que dañoo mooy seen diine kon duñ ci mas a àtte wu lettre commencé ñuy yónnee gouvernement gouvernement France seenu bañ leetar ci leetar leetar ci kaw leetar leetar ci kaw leetar leetar ci kaw leetar leetar ci kaw leetar loolu dem na ba mat vingt cinq ans mu ëpp ko ndax mille huit cent trente ba mille huit cent cinquante sept nga xam ne fédéral bi xam ne ne amatul fenn fu mu jaar ndax jullit yëpp bañ nañ ne duñu àtte wax ci code civil France bi mu gis na léegi bon moom mooy mujj fekk leen ci liñ bëgg mais du leen may lépp luñ lépp lépp lu ñu amee woon fan lay fan fan la yemale sëy luy takk sëy ak lu koy tas wàllu héritage wàllu testament loolu léegi nañ koy àtte ci tribunal islam yi nga xam ne dañ leen di dellu siwaat fu mel ni euh, Kajoor fu mel ni Ndar fu mel ni Ngaay fu mel ni Kaolack fu mel ni ki Rufisque fu mel ni ki Dakar fu mel ni ki euh, euh, nu tudd gore gi waaye nag lu ngeen ci àtte yéen jullit yi su ngeen pare indi leen ñu ko ci suñu bureau yi ñu homologué ko suñ ko homologué wut du am force du nekk décision loolu amaat nañ dara d'accord ñiy dawaat di daw di daw di daw ba colonial bi ñëw 1960 bi ñëwee li ñu amoon ci tubaab bi néew colonial bi far ko ñun ñu far ko ñu far ñu far ñu far ko nangul suñu bopp maanaam am nañu léegi indépendance lépp lu fi amoon ci din din ko din ci réew mi amatuñu dara li ñu tubaab bi ma yoon que néew nangu nañ ko amatuñu tus bi loolu xewee mag ñu baax ñu fi nekkoon jóg Dabax Malick Gaynde Fatma Sëñ Fallou Baye Niass Seydou Nourou Tall pour demander waat ñu delloo suñu suñu code la famille pour ñu àtte wu suñu diini loola topp nañ ko ñaata at ba dafa mujj yàqu bi ñu ñëwee bu yàggu dara jamono si Mansour bi ñu dugg gars yi duggaat ci programme bi ba am ba commencé génne code de la famille ba yëf yi dem assemblée waaye ba léegi si génnagut kon bu fekkee ne ba léegi si génn gudd ana ñun loolu la ñu may en tant que jullit ci biir tribunal Sénégal tribunal Sénégal yi fi nekk man cadi la cadi tutélaire tutélaire la ñu ne donc léegi les présidents tribunal premier euh, premier instant il peut consulter le cadi il peut consulter le cadi boo demee nas bi mooy almad al asira texte bi numéro 10 bu ngeen demee da ngeen fekk li ma wax. article numéro 10. waaw article numéro 10 bu ngeen demee fekk li ma wax il peut consulter le cadi. peut mais buñ ne il peut mais il peut pas kon on n'a rien ba léegi si ñu daw di daw di daw ba l'an 2015 ñu doog a am il doit ci Macky Sall kane léegi lu aju ci wàllu miraas président premier instant il doit consulter le cas yi bu fekkee ne conflit am na fa bu fekkee ne am na conflit su amee nisaa su amee xëccoo bu fa am il doit consulter le cas yi loolu la wax aussi tamit dala day jël ñiy xëccoo yóbbu leen ci kat yi mu def mu def mu def kii nu mu tuddati euh, médiation bu fekkee ak juboo am na seen diggante mu demaat ci kanam président ni ko juboo nañu pour ñu amoon léegi wax jooju wax ji mën a jàll. kon ñun ci Sénégal fii lañ tolloogum kon su fekkee ne yow da nga ñëw ñu miraasal la ba pare nga jël sa miraas yóbbu tribunal teg ko fa tribunal am na lu mu lay def loo mooy jugement de jugement d'hérédité am na ñoo xam ne tribunal mën nañ leen a dugal ci biir ne war nañoo donn te fekk sariya dàq leen doom boo xam ne dañ ko adopté islam du ko nangu doom boo xam ne juddoowul ci yoon islam du ko nangu doom boo xam ne juddoowul ci sëy bu baax islaam du ko nangu te yooyu yëpp mën nañoo wax ne waa moo ko jur ñu dugal ko ci biir ah, jugement d'hérédité bi doonu loo ko bàyyam te fekk warul doon foofu wuti nañ fi ak ñoom hmm? maître Ndiaye ci saal bi dana am lu bari lu fi wax bu ñëwee ndax mi ngi toog en tant que cour d'appel yaa ngi de léegi lii ñun nangu wuñ ko te ñoom mën nañ ko bind wéyal ko doon loo ko te fa fekk sariya bañ na su ko defee li tax sëriñ jóg tey mu jaral ko lu nekk mu def conférence bi pour yëgal doomu aadama yi ne leen miraas lu yàlla farataal la ci jullit miraas lu jullit war a jëfandikoo la ndax yàllaa ko ko digal ah, waaw may ñu cinq minutes pour mu ko bàyyi ko mu ko conclure la diggante boobu dégg nga sëriñ lii moo ko tax a jóg pour jullit yëpp xam ne am na lu ñàkk te mag ñu njëkk ñi bañ ko ñàkkee woon daf leen jaraloon lu bari waaye du xeex du saaga du xulo du toj ay pën dañ doon bind ay lettre ci lettre yu ànd ak teggiin di demander li nga xam ne seen xàq la pour ñu jox leen ko ci la ñu jaar lu ëpp vingt cinq ans bi nangu ko ñun tam mag ñu baax ñi fi nekk ci senegal ñi ngi ci tànk yooyu bu leen yaakaar ne bind ñu ñi ngi bind ñu ngi laaj liñ bëgg ñu ngi ciy waxtaan waaye nag ci teggiin waaw waaye ci teggiin lañ koy defee nag waaw woo ñu kenn kuy yuuxu ci mbedd mbaa ngay xotti pënu mbaa ngay def nangam déedéet na ko mag ñi laaje woon ci teggeen ba am ko ñun tam noonu la ñuy laaje gouvernement Sénégal ci teggeen ba mu delloowaat ñu ko ndax suñu xàq la ñoo ko moom loolu la sëriñ bëgg moo tax sëriñ jóg kon tey programme bi du programme li jëm ay masala waaw nit dee na bàyyi na fi fukki junni ñaari junni jabar a jëkk ni lañ ko war a miraas nun taxuñoo jóg li ñu tax a jóg mooy li sëriñ bëgg ñu fexe ba Sénégal gépp ànd ko moom bëgg ba ëllëg bu sëriñ jógee senegal mën koo gunge ànd ak ñoom ànd ak moom ci li mu bëgg dañuy yëgle ndax tey ñu ngi ñu ngi tribunal sëy wératut benn miraas wératut ndax dañ ne sëy mënut a wére fenn fu dul te ñun bokkuñu ñoom ay programme maanaam xale bu jigéen bi amul droit maye boppam baayam bi ko jur moo koy maye ca ñoom liberté boobu jox nañ ko jigéen su ko neexee maye boppam alors kon wuute amaan na foofu wàllu can ak ñun niñ koy laajee ak tribunal ni ñu koy laajee nekkul benn tribunal li ngi xool nan lay économiser sa poste ba doo yàqale sa doo yàq sa alal moom tribunal mi ngi xool nooy économiser sa poste ba doo yàq sa alal ba tax na mu yemale ko ci 3000 francs bu ñu ca boolee boisson lépp du passé quinze mille francs kon moom mi ngi bañ inel mu basari na kaanu ixwaana sayaatin ngay jël ay millions ki milliards di ko dépassé ci sëy tribunal soxlawul loolu te itam islam wax na nee na can gu la gën a yomb sëy baale ëpp barke can bu la gën a yomb ay sarul muhuri fii baraka ay sarul muhuri fii baraka waaye terewul système bi wuute na ndax it ndaw si dana ñëw jëkkëram fase ko fase bu jëkk ñu ne balaa aide jee jeex mën na koo delloosi ba léegi buum gi mi ngi fi jëkkëram fase ko fase ñaareel ñu ne balaa aide jee jeex mën na koo delloosi ndax buum gaa ngi fi ba léegi buum gi nag am na ñu ko xamul am na ñoo xam ne boo leen waxee buum gi ñu mel ni maanaam soo ko mel ni Souleymane Seck mën na koo xam waaye nag li ma leer moo ñu bari xamuñu buum gi buum googu mag ñu baax ñi daan bàyyee ca sàq ma nga xam ne ku ci ayee yaay dem ca sàq ma jël buum gi nattee ci dugub ji nga war a euh, ji nga war a bojj soo ko ca takkee ni ba ba ba ba takk bi fees loolu mooy sa njël nga dem yóbbu ko bojj ko loolu la tuddee buum gi léegi nag biñ la fase première mën nañ laa dellu soit ndax ba tey buum gang fi ndax mën ngaa jëlaat njël deuxième bi bu ñu la ko fasewaatee ah léegi nañ la dellu si balaa edd jeex waaye bu ñu demee troisième passé nag buum nga nekkatu fa buum gi nekkatu fa léegi amatoo droit dem ci sàq mi natti dépense léegi buum gi jeex na kon ñun foofu dañ fi tasee sëy ñu ne déedéet léegi dama tribunal certificat xaamalan Euh, certificat de mariage da nga war a wuti certificat de divorce amoo certificat de mariage ñoo ne demal defi no inscription pour am certificat de mariage pour sa sëy mën a tas formalité yooyu ñaata at ci sëy boo xam ne sariya tas na ko bu yàgg tribunal daganal ko parce que tasagu ko bu dee ñaar ñoo xam ne seen ngëm yàlla dëgëru dañuy continuer di sëy te fekk ne seen sëy bi islam dina ne ko bu yàgg kon su ko defee léegi miraas it noonu la ñun miraas nañ ba pare islaam lii la wax yàlla defee nii yàlla defe nii yàlla defee nii yàlla defee nii yàlla defee nii bañ pare ca programme ah ñu leen lii ñuy def farata bu yàlla farataal ci suñ kaw ndigal la loo xam ne suñu borom moo ñu ko jégal pour lam yakil lam yakil ila nabiyin mursal wala ila malakin muqarrab yàlla procuréwul miraas procuréwul miraas maanaam benn yonent wala malayka mu ko jege moom moo ko téyel boppam moo ko téyel boppam farataal miraas ci kaw julli yëpp def ko muy ndigal lu wàcc seen kaw def ko muy wëlëre boo xam ne seen diggante ak seen borom yomal xiyaamati dañ ko war a régler bi mu paree xam nga lu wax moom yàlla dafa ne fii mooy sama yamuwaay képp koo xam ne ki jàggati woo ko képp koo xam ne ki wéyal nga ko boo dee ma dugal aljànna yéen dégg de képp koo xam ne ki sama yamawaay bi ci miraas man yàlla su ma ko yamalee nii képp koo xam ne kii jàggati woo képp koo xam ne kii wéyal nga li ma def boo dee ma dugal aljanna man yàlla te tamit naa la fay fayoor gu màgg a màgg mag wasaaliku wal fawsul asim yudxilhu jannatin tajri min tahtiha al fiha wasaaliku wal fawsul asim lii la alxuraan jàngale ki sama yamuwaay bi man yàlla ñàkk a wéyal li ma teg indi programme boppam doxalal ko boppam buy a dugal ko biir safara wa man yaxsi laha wa rasul wa yataadda xudud yudiqilhu naaran xaalidan fiha wa lahum wa lahu asabu muhin wa lahu asabu muhin eh, loolu alquran jàngale kon su ko defee ne jullit nga yow yaa ngi julli yaa ngi woor yaa ngi dem màkka fu nekk yaa ngi fa jëm ngir yàlla jéggal la ëllëg yowmal qiyaamati boo deexee nga dugg aljanna ah sama borom ne la boo defee lii ma dugal la aljanna boo defee lii ma dugal la safara yow nga préféré def li mu wax ne boo ko defee mu dugal la safara kon boo duggee safara ëllëg kenn tooñu la yaa sa bopp leer na wala leer ah ba tax na nee na daganul ci kenn nga naan sama doom ji bu ma donn da ngaa moom mbir da ngaa moom programme bi bay bay aaye ko la doon yow ah yow sa yoon da ci nekk wala yajuusu lahu an yaxruma waarisan min irsi yi déedéet man qataa miraasan faradahu llahu wa rasuluhu qataa llahu miraasahu min aljanna képp koo xam ne kii ni yàlla tere leen miraas yaa ko jël sànni ko ca biti sa miraas ëllëg yowmal qiyaamati suñu borom dina ko jël sànni ca biti kon doomu aadama amul droit wax ki ko war a doon dooma doon amul soo ko defee def nga lu te nga dégg beneen programme euh, président nit naan bu ma fi jógeen na ma diw na ma diw wuutu eh, <coughs> yow xilaafa gi am ci kilifa yi wuutu ijbaariya la xilaafa ijbaariya la ah xaysu laa yatawaqafu ala iradati almuwarris wala ala qabuli alwaris bi nisbati lahuma maan ah? Ah? yow ki lay wuutu wuuti gi lay wuutu forcément du sa namu toog bi mu toog it moom it tamit du nangu téefam suñu borom moo ko diglee yow kon ban sañ-sañ nga am ba yow boo fi jógee ne la di wuutu foo ko teg islaam nanguwu ko demal rek faatu nga demal féete jeeg sa borom ba mu la jox nga jël mais kiy toog sa place nag ki fi war a toog moo fi toog même bu nekkee dof xamul dara na nekk sax dof buy xotti këyit na nekk dof buy lekk ay mbubb mais gannaaw moo war a nekk xilaafa bi moo fi toog ijbaari yan ah danga de kon su ko defee léegi innaha xilaafatun ijbaariyatun oustaz laam kon nit lu si yoonam naan boo fi jógee na fi nit dafi na na ma di wuutu amoo ci amoo ci yoon mi toogaay la boo xam ne sa yoon nekku ci waaye yow mi doon lii ñu lay jox na mooy sa wàll ci ndono li lii forcément da nga koy jël amoo droit delloo ko amoo droit wàññi ci dara danga koy jël forcément jabara nga koy jël bi bi bi mu jara di ba fàttali mu war directement rek am li yaa ko moom jël ko soo ko jëlee nag ba téye ko ci sa loxo nii ba nga xam ne yaa ko moom léegi am nga liberté pour soppandikoo nag léegi lii nga téye nu mu la neexee bu la neexee mayel bu la neexee saraxeel bu la neexee féetaleel ku la neex gannaaw séddaleegul bul wax mukk na joxe naa sama cër da xam xamagum li nga ah muñal ba nga xam ko bañ islaam jox la ko ba nga téye ko nga xam ne mi ngi nii yàqu bu boobaa nag ba nga xam ne téye ko sa alal la yaa moom léegi ci li nga donn islaam mu ne léegi libre nga ci soppandikoo li nga téye num la neexee bu la neexee mayal bu la neexee saraxel bu la neexee defal tanaasul ay sax seen àqal anta xor loolu mooy li am lu dëgg waaye man de ah man daal miraas ma jarul ma cee dem man daal ah man daal bàyyi naa sama man daal bàyyi naa sama bari yow ku la wax nga doxalee noonu kan moo la ko wax islam waxut loolu muñal ba jël li nga war a jël ba pare li nga war li muñal ba nga jël li nga war a jël ba pare soo ko jëlee ba pare ba mu nekk sa loxo yaa ko moom bu la neexee mayal bu la neexee saraxel bu la neexee joxal keneen ah Cheikh leer na wala leer. leer na bu baax leer na mooy li nga xam ne. moo war ci waa ji nga xam ne dafa war a donn ki war a donn na muñ ba jël cëram ba pare bu ko neexee mu maye bu ko neexee mu saraxee waaye ki nga xam ni kii moom lañuy donn moom itam li war ci moom mooy mu nangul yàlla lim dogal ci moom ni yàlla séddalee miraasam mi na ko ko nangul amul xaq xañ kenn ci ñi ko war a donn moom amul xaq boobu moom laa wax ne amul xàq boobu daa ngi dégg kon nag na nangul yàlla mooy lan wa laysa lahu an yaxruma ahada warasatihi mi miraasi yi amul droit ci loolu loolu amul amul ci xàq waaw amoo xàq yow yow mi nga xam ne yow yaay ki ñuy donn laa wax amoo xàq donn kenn ci ñi la amoo xàq laa wax xañ kenn ci ñi la war a donn da nga war a nangul suñu boroom ni mu doxalee miraas en tant que jullit benn nga yaakaar ne sa alal ji nga am ni imaam alal ji nga dajale milliards yi yeeg millions yeeg kër yeeg oto yi ah islaam dalaa wax ne rek loolu lu la neex nga doxalee ci déedéet dafay protéger ñii la war a doon ba alal ji nga xam ne moom la la sariya jox bépp soppandiku boo xam ne boo ko ci defee lor ñi la war a doon islaam day téye sa loxo islaam day téye sa loxo du la bàyyi nga def ko kon léegi ma yemaale foofu ndax maa ngi dem ci beneen point moo tax bisimilah waaw kenn jërëjëf euh, dañoo waxoon ne bu demee ba def quelques minutes ñi woo ñoo xam ne dañu ci commencement ba lañ leen woon waaye dañ na dañoo eh, xel faay day am mooy ñaari xale yu bokk ca école ba école sëriñ bi ñu jàngal ñu rekk quelque aaya ci alquran ñi barkeeloo ko waaye ñu gàttal ko ci trois minutes rek ñu joxaat suñu mbokk mu continuer waaye moom mu defaale pause léegi imaam de li nga fi wax lu am solo la waaw ustaas bi tey andil ñu andil ñu war a jàng alquran bi ustaas bi tey élèves yooyu nañu préparé wu kon mbokk yi déglu nañ li fi imaam Serigne Mor Mbaye wax gum ca mu am solo lool ci wàllu miraas imaam lu gën a doy waar sax mooy liñ ñu maye ko bon ci miraas même su imaam bi miraasoon am kenn ku contre sax far miraas ba day yàqu dañuy tribunal da koy àtteexat na mu ko neexee maanaam bu imaam bi miraasoon ba ne diw laay am diw laay am am kenn ci ñi bokk ci ñu am cër ci miraas bu ku lànk loolee su demee tribunal dañuy firi miraas imaam ba ñoom miraasaat ko mas nañ ko def miraas benn xale bu jigéen amoon cinq million magam am fukki million mu bañ loolu dem tribunal gaaya mirasat ko ndeke papa ji nit la koo xam ne dafa xawoon a doy waar am na yeneen i doom ba mu demee tribunal ñu mirasat ko mu mujj am trois million ñëw delsi ne ah imaam man kat seen miraas ba d'accord naa ci ñu ne ko mënta nekk yàlla jox na la nga bañ kay nga dem bay buur jox la bay buur moom bu la xesee jox jeex na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 للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كسر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما الثلث مما ترك إن كان له ولد ۖ فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما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 ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن السمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس ۖ فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلاله إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إلا إلا إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجال ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم صدق الله العظيم الإسلام والإرث في الإسلام ñu ngi doon waxtaan ci nisaamul irs fil islaam léegi tomb biñ ci toll mooy taxawaayam moom système boobu taxawaay bu taxawaay bu diggu doom la taxawee ndax système héritage ci àdduna bi dafa bari am na boo xam ne bii sax dañ koo tuddee nisaamul irs at taarixi ah peuple yépp dugg ci kenn ku ne àdduna nga tëralee sa bos ñu dem ba nangu ne bu islaam a gën yépp ndax bii tëralinu sunu boroom la moom nag bi mu duggee ci biir système yi aw awil mazahib moom dafa taxaw taxawaay taxawaay bu diggu doomu ñenn ñi dañu wax ne doomu aadama amul xaq ci moom dara dañ ko aaya moom am yeneen mazahib yu ñëw wax ne doomu aadama am na euh, liber am na liberté ci moom am na liberté ci teg ci lim moom responsabilité bu ko ci neex ak nu mu ko bëggee foofu amul limité bu njëkk bi aussi amul limité islam mu a aha kay nit am na liberté ci moom waaye dañ ko tënk alal ji moom ak nu mën a tollu li nga xam ne am na ci sañ-sañu soppandiku lu ko ci neex ba mooy lu xaraam bu mu paase ñetteelu alalam waaw juróom benn million nga am ñaari millions yi am nga xàq soppandiku ci am nga xàq soppandiku ci num la neexee ci lu dagan foofu laa waxee woon ca kanam ne ki war a donn islaam a ngi koy protesel alalu ki mu war a donn bañ mu yàq ko bañ mu jëfandikoo ko ci loo xam ne dafay lor ki ko war a donn fii nag mu ne alal ji nu mën a toll alal ji alal ji si Babacar alal ji nu mën a toll ñetteel bi nga moom ñaari paar yi des ñi la war a doon ñoo ko moom yow sulus bi nga moom mais sulus yi ne ñaari ci des ñi la war a doon ñoo ko moom te ceer boobu nga moom ci alal ji aussi islaam ak la topp soo ko bëgg a jëfandikoo ci loo xam ne dafa xaram islaam day sa loxo soo ko bëgg jëfandikoo ci loo xam ne da nga ciy jublu lor ki la war a doon islaam tey sa loxo islaam noonu la doxale kon li ci des ñi la war a doon ñoo ko moom foofu amoo benn xaq pour soppandiku ci mbaa nga jëfandikoo ci dara te amoo xaq aaye leen ko noonu la sariya tëralee kon mbokk yi nizaamul irsi bii ñuy waxtaanee système héritage bi dafa jël miraas dugal ko ci biir famille bi waaw dugal ko ci biir famille bi gis nga laam dañu wax na doomu aadama yi su su ba jógee fi lim fi bàyyi balaa muy tudd euh, miraas nañ ko ci dindi nañ ko nañ ci nañ ci dindi luñ koy defaree moom luñ koy defaree nañ ko ci jëlee te tey dangay dem ci armeel yi am ku ngëb mbaxana naan lu ci waay man te liñ bind mooy lan bañ nañ ko ba tënk ko ñu ngi ko tënk ci baatu tàddoomu ñu ngi ko tënk ci baatu tàddoomu taa gi li taji hiis del gi li duyoon waaw gi lil wasiya mim gi lil miraas lu ko tëkke ah kon liñ la war a defaree bu fekkee ne am nga alal ju fi nekk balañ ko miraas nañ ci jël luñ la defaree ba denc la deuxième bi mooy lañ ñu génne say bor ñetteel bi mooy lan su fekkee defoon nga testament ca mu wér ñu wéyalal la ko bor yi nga xam ne moom nga amee yàlla ci wàllu asaka yoo génne wutoo nag ay nasir yoo defoon nangam nangam ay kafaara loolu Abu Hanifa kott moo ne doo ko génne ndax day ànd ak suwaa te ku xas dee amatoo suwaa imaam Malik mu ne da koy fay ah Hanbal nee na da koy fay imaam Safii nee na da koy fay raxma na muy faye ak na mu koy doxalee mu neen am nañ ci wuute bi bariwul waaye d'accord nañ ci benn bi mooy da koy fay da koy fay bor bi nag li mu amee nit ñi ëpp na lim fi bàyyi imam la am léegi nan la ñuy def wax naa ko benn bis ci sëriñ ma natt ko ci deux cent cinquante ameel na Abdoul Aziz si mbir kilaan bi cent mille francs ameel imaam laam cent cinquante mille ñu ñëw ci kër gi fekk fi benn cinquante mille hmm? xisamatul maxaasa mooy am maxaasa mooy am nan lañuy ñuy doxale da ngay jël cent mille plus cent cinquante mu nekk deux cent cinquante mille nga def ko maqaam nga def ko maqaam jël cinquante mille francs multiplié par cent mille francs sur deux cent cinquante mille mu jox la vingt mille nga jëlaat cent cinquante mille francs sur deux cent cinquante mille francs multiplié par cinquante cinquante mille francs mu jox la trente mille kon ki leble woon cent cinquante mille trente mille lay am ci cinquante mille yi ki leble woon cent mille am ci vingt mille noonu lañ koy doxalee même bu fa bàyyi woon vingt cinq mille bu fa bàyyi woon trente mille bu fa bàyyi woon trois mille ñu lañ ko lijjantee waaye nañ ko fay bala ñoo génne bor yi léegi nag fay nañ ko ba pare léegi miraas sa jot xale yi jàng nañ ko léegi ki njëkkoon a wax li wax miraas la mooy jigéen cëram ci islaam ki wax léegi tam mi ci biir kër gi te wax naa ne nisaamul si bii may defee sama conférence jël na miraas mi dugal na ko ci kër gi waaye na ponk yi wér il faut am ko dee il faut am kuy donn il faut am lu ñuy donn mu waris bi day am mawrus fii day am waaris day am ñett yi bu amul ndono du man taxaw ndax mooy ponk yi su paree ñu doog a ñëw nag ci lu ñuy tuddee asbaabul ah asbaabul irs waaw asbaabul irs léegi nag mag ñi dañ ko daan tënk ci baatu nuun nun nuun gi nuunu nasab ak mbokkoo lu ñàkk il faut mu am ak mbokko ci wàllu deret commencé ko ca usul ya yaay ak baay indil bànqaas ya doom ak doomu doomu doom indil xawaas muy mbokk yi mbokkal ndeeg baay ak yi mbokkal baay ak seeni doom indil umooma muy baay tex ak seeni doom léegi loolu mooy nasab kon nasab gàttut nasab dafa yaatu ndax bu ñu génnee yaay génnee baay génnee doom génnee doomu doom génne mbokk mi nga bokk ndeeg baay ak doomam mbokk mi nga bokkal baay ak doomam sa baay tax bi nga xam ne moo ko sa baay bokk ndeeg baay ak doomam sa baay tax bi bokk sa baay benn baay ak doomam kon nasab yaatu na kon mbokk yaatu na ñooñu il faut ñu génnee leen suñ ci jógee nag mu ne ah nikaax mooy sëy sëy boo xam ne sëy bu wér a la islaam nangu ko lu fa juddoo dagan foofa ndono mën na fa am waaye sëy boo xam ne baatil la dafa ah baaxul wala sëy boo xam ne fasid la islaam nanguwul doom ju fa juddoo mu mën a doon kenn parce que sëy ba baaxul tax ndeysaan laam am na bennaay boo xam ne dafa mel ni càmbeen càmbeen ci yàkkamti xam naa ñeenti soxna yi am na ci comme ci nobatul te mënu ko wax mu ñëw tiim leen na fasa naa ci kenn fasa naa kenn ci yéen waaw mais kan la fasa naa kenn ci yéen rek ca ngoon sa mu takki jabar ñu may ko jabar bi mu réere ci cere baasi bi ba suur dee waaw càmben càmben bi dee na mais léegi ñeenti jabar yi kan la ci fase te takk bi mu takkaat nii aussi wér na ah sëñ Babacar programme la léegi na la ñuy def laam ah bu leen ko jaawaleeg majoos bi nag majoos bi am na droit cinq six man maa ngi wax ak jullit bii léegi un bi nga xam ne moom la ñeenti jabar yi waroon na bokk moom la ñu mujj xaaj def ko ñeenti xaaj jël ñeenteel ba jox ko ki mujj a takk ñetti cër yi ci des ñu séddale ko ñeenti jabar yi kenn ku ne dem leer na ah noonu la tëddee léegi nag kii dafa ñëw feebar na jabar ji baax bañ na ko am na barki démb rek ko wantre këram ci trois cent millions te kër gi jar na six cent millions mais mere jabar ji la fase ci taxawaay mu jaay kër gi trois cent millions ba muy génn kër ga socc socc la génnaa li dafa gàdd sarweet ya yow ci biir génn ak socc dem yoonoon ñibbi ba ba noonu la bàyyee këram nga guy jar trop six cent millions waa léegi nag nga mere soxna si bëggoo mu doonu la te yow sa feebar bi xam nga ne danga ciy dee hmm? nga fase ko ci feebaru ndee bi nga nekk soo ci deexee dana dana la donn te moom bu deexee doo ko donn mën naa amaat nag ci benn weer benn at fukki jëkkër yu demee noonu te ñépp lay donn te moom bu dee kenn du ko donn moo tax kon feebaru ndee ku xam islaam doo ci doo fase sa jabar leer na walla leerul kon su ko defee islaam a ngi noonu mooy sëy bi na wér bu fekkee ne wér na ndono mën a am seen diggante yow jëkkër ak yow soxna si du dëgg bu sëy bi wérul nag seen diggante ndono du faay doom bu fu bu fu mën a juddoo doom boobu du mën a donn ak li ñoo tuddee doom bu ñoo tuddee ad ada adap adapté ah adopté adopté waaye day déglu professeur yi ñu ni <laughs> adopté doom boobu ñu adopté muy mu tabanna boobu islam nee na du don islam nanguwul taban nii adoptation islam nanguwu ko islaam lim nangu mooy kafaala benn bis maa ngi fii maison de justice bu jàmm gën si Kambaaw di àtte booba Mamadou Jaxumba booba dafa feebar man maa amee kër gi benn jigéen indil ma benn doom ak benn xale bu góor boo xam ne basaree la fële ci Tambacounda xale bi ñëw ak xale bu góor bi xale bu góor bi mu moo jur doom ji soxna si ne ko juróo ko sama jëkkër bi ma taqali ko woon demoon seeti sama doom bi mu amee moo moo ma ëmbalaan basaree bi ne ko man maa la jox xaalis maa moom doom bi ma ne ko yow sa diina daganal na njaalo wala déet mu na ma sama diine dafa xaraamal njaalo ma ne ko soxna si yow sa dafa daganal njaalo mu ne déedéet man sama diine dafa xaraamal njaalo may leen kon yéen ñaar yow moomoo doom yi kii moom moom doomam su fekkee ne doy nga ko ñu bind muy kafaala nga garde ko pour dimbale ko ci doom bu la ci wóolu wóoluwut ñu jox ko baayam bi mu wóolu mu dimbale ko ci doom waaye yow doo jël doom ci ma def benn taahut bind ko yóbbu police bàyyi benn ci maison de justice jox ko benn jox soxna si benn nga xam ne ku ci wax sax sama tànk ngi métti diwoo ma ko teg ma def ko ci kaso bi noonu laa ko àtte kon su ko defee doom yooyu sariya bëgg ko am na nag doom yoo xam ne dana am islaam dana ko bàyyele bàyyi mais dana ci teg yar dana ci teg الحمد لله الذي أغناني وأعزني بتلاوة القرآن ثم الصلاة على النبي المصطفى خير البرايا من بني عدنان